ku nekk ñi ngi lay nuyu si ak sa sant di leen baro àq te di leen baal àq kon daanaka yenn détails sax xawu koo jar dañuy daal dem rek ci li ñu fi tax a daje nun ñëpp ndax ñi fi ñëw ñëpp am na ci ñoo xay ña nga jógee Ndande ñii nga jógee Kébémer ñii ngi jógee Touba fu ne waaye jógee na fa ñu fi ami place kon mën naa ne régions yi ci Sénégal yëpp am na ku fa jógee ñëw fii ndax marché Thiaroye toll noonu li ñu fi dajale nag mooy sunu marché bii xay moom la ter bi tojan ndax yaakaar naa weer wi nu ne di weeru novembre le 2 novembre 2018 lañ ñu tojal kon tey euh, ba noo ngi ci le le 29 novembre 2021 kon léegi dugg nañu ñeenti at yi kon kookee tam te directeur OPSIC dafa waxan ni bañ ko ñaanee quinze jours dañu 15 jours yi dinaa fay sëg yëpp juróom-benn weer ci la marché bi àgg kon tey boo demee ba ñeenti at kon ne xam na la mbaxan dara di fu ko président nag la mbaxan def na ko sant nañ ko gërëm ko. ndax neen na dinaa leen jox juróom-ñaari hectares dinaa leen jox 7 milliards joxe na juróom-ñaari hectares yi joxe na 7 milliards yi waaye directeur APEX deful liggéey te da koy saboté ndax man maa waat ne marché bi képp bu àggan doy na ko bilaa département Pikine marché bi bu ko président àggalee mën na ko def départ bilaa département Pikine kon ko koy xaañ war naa xam ni kii deful liggéeyam tey it la muy jéem du sotti ñu di leen xamal ni euh, nun bu nu toogee ba yàgg nu dégg nii man Mansour fay ne saxaar gi dina daw le 23 wax na dëgg saxaar gi fa muy daw ay nit a fa nekk nit ñoo ñëw xooloo ci yan condition lañ nekk xamoo ñi ngi lekk xamoo ñi ngi naan ndax yaakaar naa ni ku xëy joxoo sa waa kër dépasse ñu feebar mënoo jënd warnaas fan nga jëm ko am leetar bu jëm àllaaxira na la ko yóbbante di nga ko yóbb kon ci foofu lan toll nun nag ginnaaw dañuy dee te dañuy dee ma na ma defee woon communiqué jëru ko fu ne waay jóge na fa la 23 fu ay mën a nekk nan ne ca gaar ba nañ nu rey nu jeex buñ nu jeexee nu xam ne ci suñu alal lan dee waaye la 23 fu ay mën a na ko yóbbaale nañu daje gaaru caaroy nañu daje gaaru caaroy la 23 nun buñ nu reyee ba nu jeex bu leen neexee marché ba nu leen neex ñu def ko waaye saxaar gi daw joxuñu suñuy plate fay ñu seggi mënuñu ko sunu muñukaay yem na noo ngi ñaan na kilifa dinañ nee nañ jàmm lañ bëgg waa Touba wax na ko waa Tiwaan wax na ko waa Njaasaan wax na ko waa Laayeen wax na ko ñëpp ko bu ñu bëggee jàmm nañ wax ci lii ak daay moom man ngaa xam fa muy tàkkee waaye fa muy fayee doo ko xam nun daal pare nañu pour génn àddina ndax daanaka tikkeetunu dara ndax sàcce fi nekk ak agressé te duñ sàcc dun agressé te yalwaan dañ ko fi tere kon nag fu nu jëm nan dee benn yoon woo naa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> waaw li ngeen a ca ba léegi waaw ñu nga ca ba léegi duñu fay taxe ndax lañ waxan ñu ci dara dara lañ ci deful nun maire nu ameel àq waaye ameeluñu leen àq ndax patante juuti ñun xam nañu ñi war a fay patante moo ñoo xay duñu fay juuti mais caaro kenn ku fi dul fay juuti amul su patante ñëwee dañuy fay kon yaakaar naa maire leen ameel àq waaye ñoom ameeluñu ko àq te li ñu wax defuñu ci dara lu mat juróomi lu lu lu mat juróomi protogal yoo xay def nañ ko te engagé respecté wu ci benn amul passerelle baa nii ku ne xam na ni gaar bii moo ëpp ci nit ñuy jaar fi jëm ci marché Thiaroye tey ji bu fi passerelle amul 103 be commerçant yaa ngi nii fu mu laajee tëj nañ seen i place kon yaakaar naa ni lii te Thiaroye de li muy dugal ci économie yu senegal ndax man naa ni tey jii boo demoon pàkk ba soo nee ana oto bi jëm Mali ñuy la mi ngi nii boo nee ana bi jëm Côte d'Ivoire ñuy la mi ngi nii boo nee ana bi jëm Gambie ñun la mi ngi nii boo nee ana bi jëm Mauritanie ñu ne mi ngi nii kon marché bi amul ci Afrique kon nag yaakaar naa si condition yi marché bi dund jékkul rafetul jaaduwul waaye nag noonu pare nañu pour faj lépp bu neexee yàlla. la ngeen fas yéene def incha leen fas yéene def jooti bii duñu ko fay yenn taxi yoo xay dina dugg ci maire bi dootuñu ko joxe ba keral li li li sàmmonteeg moom mu def ko. parcelle bii nañ ko defar. 103 bii nañ ko defar kooku maire mënu ko def mais état na ci jóg nun fii leen taxaw lan war lépp noo koy de suba noo ngi koy def ngoon. waaw le 23 ah, woote naa ñëpp le 23 décembre la Mansour fay wax nee na dina dawal saxaar gi nu itam fu waay mën a nekk ci réseau yi koo dem lal na ko woo ñun dañoo jëlale dama woo ci communiqué mu def dama ne borom place ak ki luwe nun fee bu ñuy dem ñëpp la ñuy danoo jël di sonn ki nga xëy da doon jaay caafam fii jël jël jël siwam teg jël jël jël palaatam teg ci sax dañ koy jox fu mu toog ndax président bëggul someur yaakaar naa nag ku ne damay créer emploi am marché boo xam ne mën naa jël juróomi junni nit wala juróom-benn junni nit nga di ko négliger kon sa directeur boobee baaxul jàppalewul directeur waaw directeur fii li ñu fi yëkkati mënoo ko wax parce que caaray ku ko xam-xam na ni gis nga fii nga jàkkaarloo am na ñoo xay taabal ji mel nii lañ fi daan teg teg seen mboolum dambe teg seen cafetière kafe teg seen mburu mbayeen yi ak càmbeen yi bu ñu demee ba midi dégg nga ca la ñuy jënd aw mburu wut ñaar fukki dërëm ndamee def ca naan café ba ñibbi bu ñu wàccee ngoon door a añi seen kër loolu amatu fi te ñooñee dañ doon def bu ñu jaayee ba tisbaar ñu dem ca marché ba jënd seen ñaari yaboy jënd seen xaru suppame ak xaru naajo dem baxali ndax seen i jëkkër reetareta na te seen i doom liggéeyu kon li ñu yàq fii nun xam nan ko nun kon mënuñu ko wutal a limite li nu bëgg daal mooy lanu am koo nga xëy doon nga jaay fii waatal ni den la yóbbaale fee lu am nun ñëpp noo koy bokk ci loolu lan nekk tey loolu la nekkal ak ñi ngi woo ñëpp bu kenn des la 23 daal suñu bakkan yii moom moom la ñuy jaay kilifa diine yi nag ginnaaw jàmm lañ bëgg jàmm la ñuy woote nañu nu waxal Macky Sall président Macky Sall lan soxla mu mu mu recevoir président ñun directeur u bu nu wooyee du nu dem gouverneur bu nu wooyee du dem président la lan bëgg mu woo président Mamadou Thiam ba mu wax moom li xew parce que kii ñoom nu ñu koo fay saa yow mu saa dal naa man bu dee rajo bu dee rajo. duma ci bokk bu dee taal pono du ma ci bokk kon ku am gor su mel noonu leer na la ne mu liggéey la liggéey bu toll nii eh, war ngaa xool la muy def lan la kon nag léegi nun nag jox na nañu carte balaas mooy sunu général bu nee door leen mu dóor te deenu dóor man nag ñaan naa bu boobaa man saa bakkan bi yal na jëkkëre waaw le 23 ca suba suba gi la ñuy xëy 10 balaa 10 heures na fa fekk ñëpp ginnaaw nañ daal saxaar gi moom dina daw balaa 10 na fa fekk ñëpp ah seeg yi bari na fi ne lii ñu soow fi ne nii ba balaa am juróomi fan ñu indi juróom fukki seeg mbaa juróom benn fukki yoo ay 300000 la ki 200000 dégg nga bàyyiwaat ñetti weer ñeenti weer door a andiwaat seeg yooyee tey ki nga ko jox soo ko joxee mu lekk ko ëllëg boo ko joxee place fan lay jaay fan lay jaay day u place ba wala mu jaay ko dem kon nag ñun li ñu gën a ñor nañu fay seeg yi nañu defar place yi te itam ñoo ngi wax président ni ko wax dëgg yàlla soldat bi seen miir ba ca àngal ba na nañu nu may fukki mètre ak juróom yoo xëy dañ koy dagg kab yooyu mën a ñëw ci marché parce que marché ku ko sanc ay conteneur dina fa dem marché ku ko sanc ay camion dina fa dem te àngal boobu bu fekkee miir baa nga fa ay camion du fa dugg kon nag nun ñaanaatunu leneen waaye nanu may fukki mètre ak juróom yoo xam ne yi bu dee miir ba sax buñ ko tuxalee dañ koy miire man nan ko waaye oto yi man faa jaar dugg ci biir marché ñun loolu rek la ñuy wax